sant sëñ Touba bu wér. am nga jàmm. waay billaahi sam naa jàmm bu baax a baax. wallaahi jàmm ju bari sax. Ah. waaw maa ngi sant xam na ci li mu jóge xam naa ci li ma jóge ci joge jóge li ma jóge ku ne xam na xool dama bere ñàkk waaw moo tax xam naa ci li ma jóge ah. te neexut. bëgguma ci delluwaat te liggéey naa lu tax loo xamante ni du ma ci delluwaat incha allahu rabbi waaw. soo bëree ñàkk war a jëmaat si combat bu toll nii noo war a dikkee ak noo war a doxale non man aatu gëléem laa rek aatu gëléem aatu aatu gëléem ñeme biti fanaan ragal biti fanaan bu ma jëlul kiit damay jël keneen man aw ma ku yomb ak ku tàng ak lii laa yemale parce que yomb ma wéru lu yomb waaw. pànk nga newoon ci yow ci làmb nga xam ne dangay xeex bëri mu mel ni dafa xaw a wàññeeku wala wàññeekuwul. non dara wàññeekoo ci dara wàññeekoo ci xalu ndeef moom des fois moom day mel ni lu fay rek nga yaakaar ne fay na waaye boo laalee ca biir dootoo ko def lépp a ngi fi ba léegi en tout cas daal combat bi bu gaa yi bëggee xool ko combat bu neex rek nañu seetaan le troit lépp laay andi barke Seydina Mohamed. kon Tidiane Faye mbaaru daa jóg ci xelu ndeef bu fay. mu yaakaar na daa fay jeex na takk xelu ndeef dafa yaakaar dafa fay ci la jógi dina teb waaw. xelu ndeef ku ko ku ko jógi naa ñu ne des na la beneen tëbin. xelu boo ko jógee di nga teb tebaat da lay lakk bu la lakkee xam nga di ngay teb. daa mën a bëre de. man moom wax dégg naa la diw dafa mën a bëri jaaxal ma waaw man bu dul dara bu ma neexee bu ma téye sama bopp duñu ma daan. bu dara boo téye sa dara dara bu ma neexee bu ma téye sama ma daan loolu dong mën a bëre mënu koo mag. nga yaakaar mi bu la jël see du la maanaam du du du la fay fekk yóbbu la. jël si bul ma jël see dul ma fa fekk de dul ma fa fekk te bu ma ko jëlee du baax ci moom waaw waaw. xeex mën naa jeexal seen combat. xeex mën na koo jeexal mën naa jeex ci xeex mën naa jeex ci bëre. parce que bëre door la ñu wax moon ngaa ñëw door mu jeex moon ngaa ñëw bëre mu jeex ñaar yi ngay nganaayoo rek ñoom ñaar laa nganaayoo fi mu ne nii. mais Tidiane mi nga gis ni yéen ñaar ci wàllu doole kan moo ëpp doole nga yaakaar. non man moom wax dëgg yàlla xooluma sax moom am na doole amul doole parce que instant mu toll nii man bu may toog sax di xool Tidiane Faye ndax am na doole man dama war a bëre ñu ko ëpp. kon waruma xool ci moom ay dooleeg dara lenn rek laay ñaan yàlla muy daan ko mais xooluma ci moom dara waaw. risque tamit amul ci yow ci combat bi nga jël nii. déggoo ma la damaa ñaan yàlla bëreeg ñu ko ëpp damaa war a bëreeg ñu ko ëpp moo tax du risque ci man. risque bi buñ ko waxee mooy koo xam ne yaa ko féete xale moom moo la mag si lamb njëkk la ci lamb li mu bëre bëre ko est-ce que du ay risque foofu la ñuy waxee quoi. non lamb lamb lépp risque la làmb lépp risque la waaw loolu moom. ñu xam ko ak ñàkk koo xam moom lam lépp risque la lépp risque la waaw. ko combat mën nañ ko xaar combat bi yàgg wala man naa gaaw. ah man de instant mu toll nii moom wax daal day yàq wax day yàq mais daal en tout cas moom neex moom dina ko def moom moom dina neex lool. bala trois. waaw bala trois mais nag. waaw moom wax dëgg yàlla ku ma jox ceer la nag waaw grand bu ma jox ceer la nag wax dëgg yàlla. dama ko jox cër trop waaw merci beaucoup di sant ñu. Lam Sarr. waaw ziar baax am nga jàmm daal. sant nañ bu baax alhamdulilah waaw. nga jëm ci combat boo xam ne comme ni ma ko waxee léegi yaakaar naa ne yaa ngi toog ci sa victoire dëgg malaat beneen xale bu ñuy wax Kewel muy xale bu wex xat jóge ci dafet sant yàlla bu baax julli si maam yi sant suñu ñaari waajur di nuyu waa axlu làmb yëpp di ñaan rek yàlla mayaat ñu ndam waaw parce damaa njig njigéen waaw incha allah waaw incha allah moo tax nga ne da ngaa jig jigéen. waaw xam loolu rek. boo amee dara da nga koy amaat. bëgg nañ ko de moom lañ bëgg. borom wax loolu. boo da ngaa jig jigéen ça veut dire boo amee dara da nga koy amaat. moom lañ bëgg moo tax ñu wax loolu ñaan daal bis ba yàlla doon suñu bis. kéwél nee naa ko léegi professeur de Lansar ngay bëreel mu ne moom buñ ko wax waxi professeur ndax xalaatut loolu sax ci yow ay professeur ak yooyu moom da koo féetale fële mënoo ko dàq bëri. waaw wax na dëgg dañ ko jàppal li wax nee na loo jàpp yow ci li mu wax. li ma yor laa jàpp man naa la man du ma wax su ma du dem si adversaire bay xool li mu mëninam naa la la ma tax nangu woo wax. non làmb ji ñoom ñooy toll nag wax dëgg yàlla ñun wax nañ ba toll nii bari nag suñu rakk bëri nag suñu morom bëri nag suñuy mag bëri nag suñuy rakk ñoom la ñu bàyyi te moo bëgg Tijaan ñu dox combat combat bi tax wax dëgg yàlla est war naa wax. non non ñun daal ñu ngi waaj bés ba ñun kenn ñu wax. jant bu ñu waxee dinañ ñu joxoñ baaraamu tuuma mënewuñ ko sax waaw mënewuñ ko sax. sax xel dal na. sant nañ bu baax a baax a baax a baax. Père Max nee boo liggéey ba am doole titre la kenn ndax xel liggéey bi euh, mën a bëri gee tax. mooy sunu papa xam nañu baax xam nañu baax dañoo yaroo si keppaaram moo tax mooy sunu waaw. xale bi daal mënu laa andil benn jafe ci làmb. ñun daal ñu ngi ñaan jaam nag ñaam la ñaan ñaan la am gerte yàlla na ñaan leen ma may leen sant leen ma doole maa ngi sant bu baax di ñaan yàlla mu dolli ma. bu la xale bi sampalee jaaga ndax xale bu mën a xeex la te pànk. waaw moom lépp ngay préparé booy dem booy dem guerre moom arme yëpp ngay préparé yëpp ngay préparé. Hmm. drapeau Pape Abdou Fall loo ciy wax. waaw ñaan yàlla mu doon suñu drapeau rek bu Pape Abdou Fall buñ daane incha allah bi Pape Fall jox ñu ko mu doon suñu drapeau waaw. looy wax la promoteur Assane Ndiaye. xanaa sant ko gërëm ko ndax ndaw la Assane Ndiaye ñu nag moom daanaka Assane Diouf la woon du fii nii. Assane Diouf la woon du tey bañ ñuy tegal 1500 gi 3000 kon loolu yàgg na du tey démb la waaw. Mhm. looy wax waa Lamsar. ñaan leen ñu ñaan moom ñu mobiliser mobiliser bu am solo rek ñaan ñëpp jàmm waaw di ñaan waa Tivaouane Lamsar waa Cité la waa Diamaguène Sicap Mbao ñëpp ñu ngi leen di ñaan ñu ñëw foofu incha allah waaw di jàmm. waaw waaw ñu ngi ñaanal ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm rek. ñu ñaar ñu ñaanal jàmm rek waaw xam nga làmb moom noonu la quoi waaw waaw diñ woo sama sama waa dëkk rek waa Tiwaan waa Tiwaan Lamsaar yëpp ñu ñaan bu baax di ñaan suñu mbokk yi fogale séeréer mi ti yaan fay naa simnaa nuun jokaa nuun na njal laya comme waa nekk jofuma nekk meexe daa nu ñaanaam région de Fatick département de Foundiougne arrondissement Djilor fop commune ne def na Djilor fop meexe daa nu ñaanaam Kaolack Kaarang Gambie ñëpp maa leen ñaan di leen ñaanal di ñaan di di woo sama sëriñ nag sëriñ Abass mu sëriñ Bass Anta Diagne ñu borom daaru di wooy waa Daaru Muxti waa waa Tivaouane waa Ndiassane waa Kaolack ñëpp daal maa leen di woo si combat bi ñaan yàlla ñu may ndam waaw jaajëf bëgg ci loone rak am nga jaam Assane mu mel ne yaa ngi waajal yaa ngi waajal le 3 xale yoo xam ne lamb leen soxla moom nga joxate amateur yi Assane dama lay bàyyi kàddu gi rek ndax combat yu neex moom duma la ko laaj. waaw maa lay nuyu di nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan di nuyu waa diaspora bi di nuyu sénégalais yëpp ñaan yàlla réew mi yàlla def si jàmm Babacar réew mi ñoo ko moom bu ñu ko kenn yàqal ñoo ko war a defar war ko yokk ndaw ñi jariñu bu ëllëgee ñooñu yokk ñooñu jariñu tax na ñu ngi réew mi daal yàlla def ci jàmm bu baax a baax a baax a baax. su jàmm amul rek dara du am yàlla na jàmm am maa nuyu sénégalais yëpp du nuyu nag amateurs yi du nuyu Pape Abdou Fall mon ami mon frère Pape Abdou Fall defal ci làmb rek da koy fay mais lebaloo ko taxaw nañu côté bu ne jàppale nañu côté bu ne kon li war a am mooy làmb dellooku ko njukkal jot na làmb dellooku ko njukkal def ci làmb loo xam ne tol nay temps ñu ngi jooy ay combat yu mag mu taxaw dëggal boppam ñu taxaw dooleel ko jàppale ko kon suñ jëlee bis tey di ko delloo njukkal làmb jëpp a ci kontaan làmb jëpp a ci ànd. delloo njukkal Pape Abdou Fall loolu moom yeyoon na ko nag ndax li nga wax itam fi la nu fekk te def na ko am na benn moment boo xam ne wax dëgg yàlla dafa résister taxawu làmb loolu moom lu am la kon li li nga ko jox dama yaakaar ne ëpp cëram nga ko delloo. waaw da koo yelloo te nit la koo xam ne gëm na boppam amul ci ay caaxaan dara te ñun lépp ñu sentir ci lu baax si kàttanu yàlla dañ koy def defal ko sénégalais yi moo tax bi ñu ko defee amateurs yi sénégalais yi diaspora bi ñëpp d'accord kon sant yàlla bu baax a baax euh, di delloo njugal nag sama xarit sama doomu ndey moo du Faye mi toog moom laa tuddee caatu montagne teg soog nit ku baax nit ku ma bëgg nit ku ma yéene jàmm bu sañan tey Sénégal wallaahi azim bu ne benn ci wàllu am-am wàllu jàmm man lañ ciy teg tey muy nit koo xam ne nag yàlla da koo dimbale ci bari yàlla suturaal ko ci bëri tey jii ah, nit a ngay wëri dara ca àll ba mi ngeeg Moodu toog Lamsaar wala Touba nit ku baax la wallaahi azim yàlla na ko yàlla taxaw yàlla jàppale ko sénégalais yi nag war nañ xam war a xàmmee. fin jëm genre yu mel nii dañ ko war a xam war leen wëri ba tax na ci mbaaxam ci gëm boppam ci jàppale ndaw yi moo tax tey ñu delloo ko njukkal duñ def leen lenn hasard ci kàttanu yàlla ndax lépp lu ñuy def rek am na fuñ ko jëlee am na fuñ koy teg waaw maa leen di gërëm bu baax nag ndax depuis bañ àndee ba léegi macha allah dara ñaawul te liggéey bi yéen a ngi koy teg si yoon dama koy wax. ñi nga xam ne dañuy sonn ci liggéey bi nañuy ànd ak ñoom ci liggéey bi man noonu laay demee mais du ma nangu nga nekk ci lu la neex ba liggéey jot nga ñëw bëgg a jël li ngay am dem man du ma nangu loolu man samay làmb ñi nga xam ne ñooy ñoo may jàppale tey jii ñi ñëw fii tey ñoom lay accrédité léegi bind leen su làmb jaa ñoo ñaay dugg si làmb ji si kàttanu yàlla ndax nag fulaak fayda kenn dal kenn kenn du ne yëguma ko groupe yëpp a yëg signature bi Instagram yi journal yi kuy dund làmb kay boo gisee lu mat cinq appel ci làmb war ngaa xam ne war nga ko yëkk donc nañuy demee fulla ak fayda jàpp liggéey bi gëm ko buggal ko suñ bopp joxante cër loolu rek moo ci am solo te nag ñu yéenante jàmm Babacar mënoo yéene nit ay di am jàmm mënul ne nañ yéenante jàmm nit lu ko yàlla may ñu nangu ko donc ñi ngi jox ñëpp rendez-vous le 3 juillet arène nationale lamb ju neex si kàttanu yàlla ma ñëw si maa ngi lay kilifa gi Modou laa. ñu delloo ziar bu baax. Modou Faye Modou Faye waaw. sa diggante ak Assane ba tax mu delloo la tey njukkal ci bés bi. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax di leen nuyu di ñëpp ñu fi teew di siyaare ñëpp sama diggante ak moom mën naa wax ne sotti ceeg def ci la sama xarit la sama lépp la tey. nangul naa ko loo xam ne bariwul lu ma koy nangul ay nit ndax dafa am fu ma nekk moo tax moom nag mënuma koo bañal dara lépp lu mu bëgg ci man suba ba ngoon dama koy def gis naa cër bi mu ma jox itam cër bu rëy la sant naa ko ci gërëm naa ko ci maa ngi ko ci ñaanal yàlla suñu borom fépp fu mu bëgg a egg ci li muy liggéey nii yàlla suñu borom eggale ko fa ndax nit ku xam ne ca la muy liggéey ci la jël ne dama la ciy teral kooku amoo fayam kon ñu ngi koy sant bu baax daal di ko gërëm man nag dama mënewul wax ci <laughs> mbooloo ak xam nga waaye ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di leen sant yéen itam di leen gërëm bu baax a baax waaw waaw di leen ñaanal gudd fan ak wér ak tawféex di ñaan ci réew mi jàmm di wax ne ndaw ñi nañu dal te xam ne réew mi suñu réew la nañu dal bu baax a baax te kenn ku ci nekk la nga nekk nga fonk ko ndax loolu mooy suñu njariñ kon nañu dalaat bu baax a baax te kenn ku ci nekk la la war nga nekk ca ñu ngi soññaat ndaw ñëpp bu baax ci ak dal bu baax a baax jërëjëf sant nañ bu baax a baax jërëjëf jërëjëf jërëjëf. man la Coly Faye 2 poids 110 kilos taille wala Ada Fass. par 1 mètre 86 105 kilos. képp kuy doomu caare ku tere caare daw sa yaram maa ngi lay woo si làmb ji. Ada ma lay wax ne yow am nga combat bu mat combat muy sa jaam ragaluma loolu foo taxaw ma fekk la. di Ndakaar yëpp le 26 incha allahu rabi arène nationale. dinañ qualifié yow dëggalal sa bopp. daw laaxu nga. dëxën bu seede nga doo dërëm boo dëggalee sa bopp dinaa la duma dinaa la da gars yi PPV lay doon ah en direct point com képp kuy bëggee Ada Fass rek maa nga jënd code bi toog seetaan lamb ji may daanee Colifay 2 jël bu rëy bu amul benn werante wan ko du dërëm kuy fans Colifay 2 dawal jënd code bi gaaw seen affiche point com jàpp si àll bu naka la waaj ba coono dem ñibbi incha allah